asalaamaaleykum mbokk Sénégal yi seetaan Allo Dakar TV man Dalu Ndakaaru nuyooti naa leen fas yéene tas tey li nga xamante ni mooy yéen a kaay la tur bi ñu def adieu professeur décès du journalisme Momar Seyni Ndiaye inna ilaahi raji'un ki nga xamante ni mooy Momar Seyni Ndiaye di journaliste moom moo génn adduna ñu koy jaale Sénégal di ko jaale waa mbokkam

pour éviter toute infiltration Eumeu ferme ses portes pour éviter li nga xamante infiltration la Eumeu Sène tëjal na portam ki nga xamante ni moom mooy Modou Lo Lo bu Parcelles Eumeu bañ mu ñëw ci pour infiltrer ko moo tax mu génne xaj yi bul dog il est entouré par des chiens rien que rek bañ li nga xam ne infiltration su ma jógee foofu damay dem ci euh, direct info yéen kay kaay fay bi mu daal def euh, le président Macky Sall dans tous ses états waaw waaw ki nga xamanteni moy son excellence monsieur Macky Sall ñu ngi leen bëgg xamal ni il est dans tous ses états jamono ji alhamdoulillah président mi ngi sant yalla jox leen ma seeni nopp déglooti ma woo Sénégal amna lu xew artiste bu jigen bi ñuy wax Queen bees rakam bu mu bokkal nday ak bay mom la génné kër gi la ilaha illallah Queen bees way kat génné na rakam biir kër gi ndax dal ba Coenbiz amee intuition am xel bu ñaaw xalaat ni rakk ji am na ku muy génn nag kenn ci biir rappeurs yi nga xam ne ñooy waa Akhlou Brick Coenbiz amatul jàmm sonal rakk ji Coenbiz ak rakk ji Coenbiz ak rakk ji ba léegi génne na ko kër gi ndax waa Akhlou Brick waa léegi kenn yaa moom xolam wala yow kenn ki mu nekkal biir Akhlou Brick mbaadu waxuma ko de waa Nord Foire ko wax Bye bye.